kookaa gën a nekk jàmbaar waa ak njàmbaar dëgg mooy waral nit mën a waaxu ba ci moroomu nitam ëppleewu la lenn waaye nga xamal sa bopp ne ah da li am seen diggante warul woon a am mën na am sax yaa tooñ wala tooñoo waaye rek xam nga ni daal li warul woon a am nga dem jégglu loolu ak njàmbaar moo koy def waaye nee na kii njëkk a baale it nga xam ne moom bu ko baaloo mu baale kooku moo gën a am doole kook borom force la ndax baale itam fi mu ne nii du yomb la def am na ñu bari ñoo xam ne fii ak seen xel a ci li nga leen defoon baal la complètement moom du yomb ci ñoom waaye nag ki raw ñépp nag mooy ki nga xam ne moom mooy njëkk a fàtte liñ ko mas a def problème bi daal bi amee moom mooy njëkk a fàtte kooku moom moom mooy ki ëpp bonheur mooy ki gën a texe yi mu wax nag ay jikko yu kawe kawe moo koy maye maanaam waaxu ba ci ki nga amaloon jafe-jafe nga ne ko maa ngi jéggulu li muy nuru nuru lu yomb dafa jafe lool sax baat bu jafe la waaye itam ñu ne la maa ngi jéggulu nga daal di baale la jafe la euh, maa ngi jéggulu li ko tax a jafe mooy nit bu xawee am dara ci ak rëy rek du nangu mukk ne moom sax moo tooñ day xalaat naan day jéggulu te jéggulu képp ku ko def rek yow jàpp nga ne yaa juum te jàpp ne yaa juum dafa jafe nit ku baax moo koy def waaye itam ñu bëree bëri boo leen xasee wax ne maa ngi jégglu dañuy daal di aju nag ca kaw jàpp ne kat kon yow moom yaa sikk yaa def nangam dootuñu la reconnaître benn melokaan bu baax jàppale ko suufe ba tax na seenu baale sax du yomb ci ñoom te mën na am nit ku baax ku ne la baal ma de maa ngi jégglu te bi mu la koy wax bëgg jàmm ma tax mu wax la ko waaye xam na ne tooñu la wala boog fa nga teg tooñ ga tolluwaay booba tooñ ga àggu fa waaye yow it soo doonee ku am force dangay baale waaye boo baale ba noppi it nga fàtte na waaye am na ñoo xam ne duñu fàtte mukk lu mu yàgg-yàgg duñ fàtte loo xam nit mas na leen koo def amaana ginnaaw loola ñoom defaat nañ fi sax ay fukki mbir mbaa lu ko ëpp waaye benn bañ leen defoon duñ ko fàtte loolu nag nañ ko gën a bàyyi xel ndax jikko yu sell mooy maye ñetti taxawaay yi mu wax ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah